demoon nañ seeti ji ko xam nga lan leen wax ndem mi ngi ci lalu hôpital daf na leen bu fekkee sacrifice dafa war a am man maa war a doon ku njëkk a sacrifié wu Sonko moo leen ko wax de bu dee sacrifice moo war a am man maa war a doon ku njëkk a sacrifié wu loolu la wax avocat bi tey te gis nga prisonnier lu ma ci yokk benn moyen wu xeex la am ci bépp ci àdduna bu gën a efficace mooy grève de la faim saa yi grève de la faim tàmbaliwul fii rek ci prisonniers yi partout dans le monde partout dans le monde grève de la faim mooy arme de guerre mooy arme de résistance su prisonnier rawatina nag politique prisonnier bu bu bu bu de la faim amul leneen amul lan lay def muy Mahatma Gandhi muy boo demee boo demee ci presque le le plus grand révolutionnaire bi monde dañ grève de la faim ba ci Nelson Mandela sax grève na grève de la faim prisonniers politiques yi fi jaar àdduna yëpp def nañ grève de la faim parce que c'est des stratégies de lutte très efficaces ci biir prison bi moo tax Sonko wax na ni mais bu fekkee ne dafa am ku war a sacrifier bu dul man kan la war a doon parce que foofu lu ko Sénégal toll Sonko fu ko Sénégal toll mooy mu sacrifié wu mu jaayante mu joxewu mu xañ boppam dund mu xañ boppam lekk ak naan mu xañ boppam lekk ak naan parce que dañ ko tooñ parce que dañ ko fenal parce que dañ ko sosal parce que ci ay caaxaan lañ ko jàppee dugal ko ci kaso kooku lépp lu mu def dagan na bépp sëriñ ba leen ne bu dee xaru la ne ko dangay ngay duul sa juróom-ñaari baay dañuy fen man maa la wax loolu dëpp bépp kuy sëriñ sëriñtu na la kii bu dee day xaru nee ko da ngay fen sa baay bu jur sa baay day fen sa sëriñ day duul ku ko mag day duul sa juróom-ñaari xeetam dañuy duul sëriñ bu la wax loolu amul xam-xam neel sëriñ boobu mu dem jàngi bu la waxee loolu nee ko mu dem jàngi lan la yàlla wax ci tooñeel ci jàpp doomu aadama tooñ ko fenal ko sosal ko dugal ko ci kaso kooku di grève de la faim ñu ne non yow boo fa dee da nga xam moo mun a kàcc moo mun a fen fan la yàlla bind loolu dam leen ubbi alxuraan wala bible fu yàlla bindee ni bu ñu la tooñee noot la dugal la ci kaso tëj la fa di la toroxal nga bugg jot sa loo war a lekk ñu ne doo ci jot dañ koy nangam nangam après loolu noonu yow boo dee safara nga jëm nee dañ ko dee duul ku wax loolu amul fenn du ci alxuraan du ci bible waxi doomi xaraam kese la waxu bu bàyyam marul bun yaayam a ngi mar bun ku ko wax ku koy wax xooleen bu baax bu bàyyam marul bun yaayam a ngi mar bun ñu ngi ci dans le mara marabu marbunisme dans le marbunisme lañ nekk Sonko a raison et Sonko rek yemu ci Hannibal Djim dafa grève de la faim ba tey ji ñu ngi yóbbu nañ ko évacuer nañ ko d'urgence hôpital principal nit dof mi ngi grève de la faim mooy le seul élément mooy lenn kese lu possible loo xam ne mun na leen sauver mooy grève de la faim mooy la Pape Alé Niang def ñu génne ko dem yoonam Pape Alé Niang sonn lu ci boppam Pape Alé Niang premier jour nga koy dugal mu grève de la faim ne la bañu ma ci dund bañu ma ci dee ma doo ma taru xale noonu mag yow munoo jël say njaboot ñuy dox di leen neex di naaw di fly di voyager depuis ban 1900 Amadou Sall mi ngi voyager ah depuis ban mille cent kañ ngeen gëj a gis fa Amadou Sall mi ngi voyagé mi ngi naaw mi ngi ci avion yi di fly Ibrahima Sall doomam jooju ñëw na jóge na Amérique ñëw na Sénégal mi ngi vacance su foofu du ngi fly nga jël Ousmane Sonko ay doomam xañ ko ba ba pare ñu waxati nga yanu baayam yanu yóbbu dem dugal ci kaso bi. bu nga xañ doomu aadama yi seen yaakaar bu nga xañ doomu aadama yi révolution buñ bëgg a wax bu nga xañ doomu aadama changement et cetera après Ousmane Sonko war na conscience war na ko mën a may muy lekk di naan noonu noonu ku bëgg akara da ngay ñemee kaan yi balaa ngaa xeexal nit nit ki si boppam day xeexal boppam te ñoom Cheikh Bara Ndiaye ko bàyyi bu mu ba léegi Cheikh Bara Ndiaye bu mu duggee ba léegi mu ngi ci hôpital bi pourtant mënoon naa toog de eh, njabootam di ko indil ay lekk ak ay naan te Pape Alé Niang ko jaayante léegi nag Macky Sall dafa benn jeu bu mu bëgg def xam nga lan la bëgg woon Sénégalais <laughs> non Macky Sall du nit dafa bëgg woon Sénégalais que Sonko grève de la faim wul Pape Alé Niang mooy grève de la faim Sonko fa jiitu Pape Alé Niang di grève de la bu muy grève de la faim Pape moom duggagul mais mu ñëw ne moom ah, Pape Alé dafay grève de la faim dafa sonn lool moom mu libéré ko comme si moom Sonko kon day moo tax ñu génn naan ay mi ngi naan kafe ay ay mi ngi nangam nangam euh, keroog reer na añ na di bëgg a gëmloo bëgg a minimiser grève de la faim bu Sonko bëgg bëgg a ñàkk lu respect grève de la faim bu Sonko mais bu wane bu ale Pape Alé Niang mooy bu original bi moom mu ngi waaj a dee nañ ko génne mais bu sonko bi bu féeg la féeg bi grave parce que mi ngi lekk mu ngi naan ay kàcc di ko fenal parce que ñoom pouvoir la fu ñu leen teg la gis nga pouvoir sa waay déggoo lu ma la pouvoir kenn du ko jox nit bu ñuul nit bu ñuul balaa nga ko jox pouvoir xoolal juróom ñaari xeetam bu ci boo ci gisee benn workat rek boo ko jox benn workat boo ko gisee ci ay juróom-ñaari xeetam rek bu ko jox nit bu ñuul war moo gën a gaaw ci moom que jaarale mbir yi yoon loolu moo tax ñoom Afrique Afrique di subir parce que dafa bëri ay traître booy wëri traître buñ la buñ la buñ la tegalee cinquante nit yu weex ak cinquante nit yi ñuul jaxase leen muy cent ñu ne la génneel ñu fii traître demal ci nit yu ñuul yi nga génne fa cinquante yëpp jëlal cinquante yëpp yóbbu boo deful ndànk quarante huit yëpp di nga gagné quarante huit yëpp ci traître yi nit yu ñuul yii la parce que du ñu nit malgré tout xool leen xool leen traîtrise bi am ci so mais Sonko Sonko lu ko lu lu ko dal dafa metti mais xol leen ñu àndoon ak Sonko di ree ak moom wër ko wax ji bari ana ñu tey quatre-vingt-dix pour cent ils ont tra ont trahi Sonko ana Barthélemy Diaz ndeysaan cët your best friend your best friend will be your worst enemy Sonko bu taxawoon Barthélemy Diaz taxaw xalifa Sall taxaw gars yi taxaw lu mu wax gars yi tàcc xool leen tey ñooñu nuñ ko def moment bi mu toog ci situation bu gën a garaaw ñu war a ñëw taxaw ko moment boobu lañ ko lañuy ñuy jéem dagg tànk yi moment bu gën a doy waar boo xam ni ci la gën a Sonko soxla xam nga bu neexee ñëpp ñëw bu ñëw bu neexee ñëpp ñëw de Sonko moment bu mu neexee adduna bi yëpp a ñëw Sonko mooy seen baay seen baay mais bu mettee moo tax doomu aadama bul mës sa tànn sa xarit ci bu neexee bul mës sa tànn sa xarit boo leen ci benn koñ mat cinquante buñ la waxee ne samay àndandoo lañ bul fa waxagum kenn sa xarit la da nga naan samay àndo ñii la samay àndandoo am na foo leen di toll ci situation bu tàng tàng tàng tàng yi yu métti ci ngay gis benn wala ñaar yu ñëw taxaw bu boobaa bu loolu weesoo nag buñ la laajee da nga naan ñii ñëpp samay àndandoo lañ kii mooy sama xarit ak kii wala kii rek mooy sama xarit xarit kenn du ko tànn ci bànneex xarit kenn du ko tànn ci ngénte xarit kenn ko tànn ci sabar xarit kenn ko tànn ci mariage déedéet xarit ci dëj lañ koy tànn dëj xarit ci dëj lañ koy tànn xarit ci naqar lañ koy tànn xarit ci ay xat-xat lañ koy tànn xarit ci ay tolof-tolof lañ koy tànn xarit kenn du ko tànn ci teg yi bànneex bu naqaree rek ñu won la seen bopp moo tax tey gis nga ndeysaan bu ma sax déglu Barthélémy jaas gis leen ni ñu def di salte yi def di waajal nag Karim Wade dem ana ñooñu doon wax naa ñi man maay yaay Ousmane Sonko kenn naan maay bàjjanam kenn naan man tànt am tey ñëpp a ko daw tey Ousmane Sonko ñëpp a ko daw dañ ne la victoire a beaucoup de parents la victoire a beaucoup de parents la défaite et nu joxe la en fait défaite la la défaite est orphelin la défaite est orphelin la victoire est parenté bu lu sotti am boroom bu baaxee ñëpp ñëw kii ne maay bàjjan kii na maay tànt comme ci yéen xool leen ko ci yéen wala nekkee ci koñ bi di góor góorlu tekkiwu leen comme ni ñu koy waxee ñoom tekki ni koy tuddee amagu leen kenn du bugg a nekk seen nijaay kenn du bugg a nekk seen tante kenn du bugg a nekk seen pàjjan waaw ah te fait elle est orpheline boo leen ñàkkee mbokk yu ndaw ngeen di seen papa ngeen di xam seen yaay wala seen tante wala seen frère ak sœur boo leen ñàkkee boo leen commencé am ngay commencé gis ñoom ñooy ñëwal seen bopp man man sa pàjjan laa man ak sa baay ñoo bokk nanga man kii naan kii sa tante laa man sa naan kii man sa xaritu baay laa loolu c'est sénégalais bu mettee ñëpp rocceekuwaat moo tax Ousmane Sonko a bien fait de résister bu résister wul moom il est le symbole de la résistance le symbole de la résistance comme Che Guevara c'est Ousmane Sonko le symbole de la résistance et c'est pourquoi il résiste Ousmane Sonko dafa résister buñ koy dóor barrière yi muy résisté ñu jàpp ko muy résisté ba suñu jonn yàlla tey Ousmane Sonko ngi résister voilà la défaite est orpheline et la victoire à mille paires exactement tey jii ñoom ñëpp ko daw ñu doon tàccu Ousmane Sonko di ko yuux xam nga lan la dese Ousmane Sonko peuple bi rek la ko dese léegi nag peuple bi moom comme teg chaque chaque jour dama leen di fàttali ñu bañ a taxaw gars yi gars ñun buñ taxawee fu ñu jëm. taxawee fan lañ jëm ñun ak situation bi ni mu day nii ñu taxaw fan lañ jëm je dis pas dañoo sacrifier nag ah comme yooyu gars yi doon dañoo sacrifier Sonko non le peuple ne peut pas sacrifier Sonko le peuple s'est battu quand même quoi que l'on puisse dire le peuple s'est battu les gars le peuple rey na 65 ci ñoom tëj na 800 les tous les leaders tëj na leen mais terewul peuple bi ba léegi taxawul moment bi ñu taxaw nii rek il faut ñu def ko benn moment boo xam ne du ay moment bàyyeeku mais moment wu préparation encore la parce que xeex bi bay illaa abat day am fu nekk nii beneen plan ban plan lañ nekk di def parce que Macky Sall nag stratégiquement parlant fu bëri ay stratégie xaaral ma expliquer leen te yow xam ngeen ko quoi Macky Sall mooy moo mooy koo xam ne bon xolam même boo ko ñuusoon ba toog ci kawam du yuuxu loolu kooku mooy Macky Macky Sall dafa bon xol bon xol bon xol mais ragal la mais boo ko ñuusoon ba toog ci kawam du yuuxu du yuuxu mukk mus ngeen gis ñuy taal dëkk bi Macky Sall génn di jooy mus ngeen ko gis parce que bëggul dëkk bi parce que Macky Sall du patriote Sénégal tollu ko fenn boo doon taal dëkk bi ba mu jeex tàkk Macky Sall du yëngu du ko faale parce que amul benn Macky Sall dafa ñëw rek pour pomper réew mi dafa ñëw pour sàcc réew mi mais mais tey dan la ñuy ngay jiite réew ñuy taal dëkk bi mosoo génn def discours sax mukk en 2020 tey bu ñuy taal dëkk bi Macky Sall génnul benn yoon bu mu jeexee lay doog a génn bu ñëpp tempéré lay doog génn waaye je vous je vous ai compris premier discours je vous ai compris bon après ñëw nag menacé di ngeen xam ni dootu fi amati di ngeen xam ni parce que ils s'en fichent du pays les kaay leen ñu guerre commencé dem indi ay armement 94 milliards 45 milliards mu def ko ci armement ne day xeex ñun kon kooku buñ ko ñuusee ba toog ci kawam di yuuxu mi ngi xalaat moom bu jogaatee nan la lay lekkee yow moom noonu la Macky Sall di xeexee ñu demaat en mille vingt 2023 janvier bii passé juin bii passé ñu fëgg ko fëgg yu metti est que mos gis Macky Sall génn ne arrêté leen wala taxaw leen wala noppi leen day mel ni dara xewul danaa leen for leen bagage yi for leen yàq nañ ah d' accord grave am problème bu génnee day menacé ah da di yàq ah da ngeen di taal ah da ngeen di nangam ah fekk yow dóor ko ba muy bëgg a dee mais Macky Sall mooy koo xam ni boo yaakaaree ni boo ko dóoree bu noppee eh, eh, jekk woo ko da nax sa bopp boo ko noqee rek bu paree au lieu mu metti lu wala da non day naan jël naa ay mesures maa ngi ñëw at jël naa ay mesures bokkul dara ci réew mi c'est un lâche juin bii nii nokk nañ ko deux fois mais il s'en fout royalement de son peuple xoolal rey na tiire teg tëj yàqate lépp ak dëkk bi nu mu yàqoo yëpp Macky Sall génnul benn yoon ne ah gis naa li ngeen yàq wala noo def leen nanga man pour moom bu waxee loolu ah, defet la ci moom pour moom bu ñëwee bu defee constat ci li sénégalais yi def wane seen mer wala seen naqar loolu muy gis noonu bu ko bu ko constaté ba wax ko peuple bi rek moom pour moom defet la ci moom donc il préfère noppi ko